أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لق لساني واحللا منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرصدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا سدد لساني نور جناني صف أماني وزد برائي mbokk السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته seen mbokk xaadim ñing moo ñëwaat di leen jottali nuyoo bi lislaam bu tedd boobu nga xam ne mooy jàmm ak xiiwal ak yërmande ak barke bu tukkee ci suñu boroom yàlla na dottiku ci seen kaw bu baax a baax a baax comme ni nga xam ne noonu lañ ko tàmbale woon ci ay bés yi weesu di ñëw di jàngalante ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu ñu tànnoon ci téereem bu am solo boobu nga xam ne moom la tudde nahju xabail xaaj fi ma min al adabi al murid yaxtaaj muy téere bu am solo boobu nga xam ne lépp sëriñ bi mi ngi ko tënk ci ay teggiin waaye mi ngi ko tënk ci loo xam ne lépp luy jariñ nit ki ci ak dundam la bokk keroog ñu ñëwoon ci bind bi weesu defoon ci lenn ci ay leeral ci li jëm ci téere bi ak ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi tàmbalee waaye it am lu ñu jotoon a dugg ci biir téere bi leeral ko ci muy li aju woon ci wàllu xikam yi nga xam ne moom la sëriñ bi andi ci buntub téere bi jële ko ci boroom xam-xam yi waaye it mooy wax yoo xam ne wax yu ama ama am njariñ la comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee téere bi bi muy tàmbali sëriñ bi mi ngi ko tàmbali woon ci bismillahi rahmaani rahim waaye bi mu indee xikam yooyu ba pare dafa tàmbaliwaat ci beneen bismillahi rahmaani rahim ngir dëgg bëgg a dugg dëgg-dëgg ci biir téere bi nga xam ne fii ñu war a doore tey foofu la téere bi fi la tàmbalee dëgg-dëgg nga xam ne fi la sëriñ bi tàmbalee li nga xam ne moom la taalife téere bi foofu sëriñ bi di ci tàmbalee comme ni nga xam ne noonu la baaxoo tàmbalee mbindam yépp rek muy tudd turu yàlla waaye sàbbaal ko waaye julli ci yonente bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon foofu sëriñ baa ngi fi wax bismillahi ci tudd turu yàlla moom lay tàmbalee samay wax wala samay jëf arrahmaani yàlla mi nga xam ne moo yor yërmande ju daj ju daj kàpp joo xam ne dana ko yërëm képp kuy mbindee fii ci al adduna arrahimi yàlla mi nga xam ne moo yor yërmandeem te jagleel ko ñi nga xam ne ñoo ko gëm ëllëg yowmal xiyaam wasalla yal na dolli xéewal allahu yàlla taala kawe na ala sayidina ci sunub sang muhammadin te moo di muhammad wa alihi ak i ñoñam di waa këram ak képp koo xam ne bokk nga ci xeetam yu alayhi salaatu wasalaam wa sahbihi ak i saxaabaam muy ñi nga xam ne ñoo dundoon ak moom te gëm ko te topp wooteem ba wasallama yal na yàlla dolli xéewal tasliman dolli xéewal wala wasallama yal na yàlla dolli mucc tasliman dolli ak mucc kan la koy dolli yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon sëriñ bi noonu la baaxoo tàmbalee ay mbindam muy tudd turu yàlla mi nga xam ne moom képp moo màgg moom képp moo am kàttan moom képp moo am yërmande ju daj doomu aadama yépp waaye moom képp mooy ki nga xam ne mooy def lu ko soob waaye ba mu ca jugee jàll ci julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal ko ay xéewal ak i aku mucc joo xam ne dina bàyyi ko ca borom bi subhaanahu wa taala wàcc ci kaw sëriñ bi tàmbali mu ne xaala wax na ibnu shayqihi ka nga xam ne mooy doomi sëriñam allazi ka nga xam ne laa yaxmadu du sant fii nafsihi ci boppam muy jëmmam si wasmihi ndare turam wa ludut turam wa muhammadu te mooy muhammad mu ne ki nga xam ne mooy doomi sëriñam moom mooy wax moom mi nga xam ne du sant ci jëmmam ja du sant ci boppam du gërëm ci boppam lu du turam wote mooy muhammad kon sëriñ bi li tax mu wax foofu doomi sëriñam mooy mam moor anta sali mi nga xam ne moo doonoon wayjuram moom sëriñ bi radiyallahu anhu dafa doonoon itam ab sëriñam ndax daf koo jàngal loolu moo tax mu ne ki nga xam ne mooy doomi sëriñam moom moo wax foofu sëriñ bi di wax ne moom mi nga xam ne mooy sëriñ bi de amul lenn lu muy sant ci jëmmam amul lenn loo xam ne moom lay ndamoo ci jëmmam amul lenn lu muy puukarewoo ci jëmmam lu dul turam wu tedd woowee nga xam ne mooy Muhammad kon moom jàpput ne dara màgg na ci moom jàpput ne dara lu muy war a puukarewoo mi ngi ci moom moom sëriñ bi radiyallahu anhu lu dut ni ñu ko tudde muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom nee na loolu kese moom la gis ci loo xam ne ci jëmmam maanaam lu ko lu ko neex la loo xam ne jar na mu koy wax wala mu koy tudd mu ne alhamdu mboolem xeeti cant yi lillahi aji yay la ñeel yàlla suñu boroom allazi moom mi nga xam ne xat satara suturaal na maa ibi samay ayib wa kaana lii te mu nekkal ma wa nasara te mu dimbali ma ci lépp loo xam ne mooy samay samay aajo waaye dimbali ma ci lépp loo xam ne mooy samay mbir kon sëriñ bi wax ne mi ngi sant yàlla suñu boroom mi ngi sant moom mi nga xam ne moo bind mbindee fi waaye moom mi nga xam ne moo suturaal sëriñ bi ay ayibam waaye yàlla mi nga xam ne moom moo nekkal sëriñ bi te dimbali ko ci lépp sëriñ bi nee na mi ngi sant suñu boroom moomu foofu mu mel ni sëriñ bi bu waxee maa ib yi muy samay ayib day mel ni dina xaw a kéemtaane loo ci ku gàttu dégg-dégg ne sëriñ bi lan moo doon ay ay ayibam ñu mën a jàpp ne ñoom jaamu yàlla gu ndaw sax dañ ko daan jàppe ay jafe-jafe jaamu yàlla bu ndaw sax dañ ko daan jàppe ay tolof-tolof li ñuy wax naa xasanaatul abraari sayiaatul muxarrabin loolu moom moo ci nekk ñun li nga xam ne moom la ñuy jëf mu di ay jaamu yàlla jëf ko ba naw ko loolu ñoom gaa yu baax yooyu nga xam ne dañoo jege seen borom maanaam dañ koy xeeb ba buñ ko jëfee dañuy jàpp ne sax ay ayib la ci ñoom waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo jege suñ borom ba am ab cër ci suñ borom lu bëree bëree bëri dañuy jàpp ne kon lépp loo xam ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla bu tuutee dañuy jàpp ne loola ay ayib la ci ñoom kon loolu rek moo tax sëriñ bi wax ne mi ngi sant suñ borom moom mu nga xam ne moo suturaal ay ayibam waaye mën nañoo jàpp ne sëriñ bi moom amutoon cikk waaye amutoon ayib mu ne subhaanahu tudd naa sellam nga moom sama boroom rabban buur la kariman boo xam ne bu tedd la jaada tabe na lii ya ñel ma bi ma ca la nga xam ne xadd xaada wommat na li sukuri yi ñeelu cantam nee na maa ngi sàbbaal sama boroom mi nga xam ne moom mooy buurub ñépp waaye maa ngi sàbbaal sama boroom mi nga xam ne moom kese moo amee tedd nga moom kese moo amee nguur waaye moom kese moom mooy ki nga xam ne moo yeyoo sàbbaal sama boroom moom mu nga xam ne moom moo ommat moo ma ommatal loo xam ne yell na mu war ko cee sant kon suñ boroom moom maa ngi koy sàbbaal te di ko sant bu baax a baax a baax wa huwa te moom suñu boroom allazi mooy ka nga xam ne jaala def na xusnal adabi rafeti teggiin yux fii muy nëbb jahalatan ak réer wa xubxa nasabi ak ñaawu askan ne na suñu boroom moomu mooy ki nga xam ne moo def ay teggiin maanaam rafeti teggiin moom moo ko def muy nëbb ak réer waaye muy nëbb askanu ñaaw foofu liñ ci mën a dégg kon mbokk yi mooy ne nit ki su fekkee ne dafa ami teggiin di ko jëfandikoo loolu mën na koo jural su amee askan wu ñaaw deesu ko xam waaye mën na koo jural it su amee li nga xam ne moo di ak réer ba xamul dara deesu ko xam ndax nit ki noppi da di am nooflaay boo xam ne mën naa suturaal nit te nit ki saa bu baree ay teggiin ay wax du ko yomb te boo waxut ngir ñu xam la dana jafe kon looloo tax ne looloo tax sëriñ bi ne suñu borom moom mu nga xam ne moom moo def ay teggiin yu rafet muy nëbbu askan wu ñaaw waaye muy nëbbu ak réer waxassa te mu jagleel moom suñu borom ahlal almi ñoñ xam-xam wal aadaabi ak i teggin bil fawzi ci tuuf bi sawaabi ci ak njub wa sawaab bi akub yoon kon nee na suñu boroom mu nga xam ne moom moo jagleel ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi waaye jagleel ñi nga xam ne ñooy boroom teggiin yi mu jagleel leen lan nee na mu jagleel leen ak tuuf maanaam ak texe waaye jagleel leen ak njub waaye jagleel leen yool bu màgg a màgg a màgg boo xam ne dana leen ko fay ëllëg summa salaatu topp xéewal bisalaami ànd ak jàmm raaxin ca ka nga xam ne mooy aji kawe alal lazi ca ka nga xam ne irtaqa yéegoon na alal buraaxi ca kaw alburaax ne na topp xéewal ak mucc yal na nekk ca ka nga xam ne moom moo kawe woon maanaam moo yéegoon ca kaw alburaax kooku mooy kan moo di yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ bi nee na yàlla na jàmm ak xiiwal wàcc ca kaw yonent boobee nga xam ne moom moo yéegoon ca kaw alburaax waaye dem ngir daalenteel suñu boroom ba suñu boroom jox ko fa la nga xam ne moom la ko fa jox muy julli yi nga xam ne moom la ñuy julli waaye suñu boroom defal ko fa ay teraanga yu baree baree bëri mu ne sayyidina kookee moo di suñu sàng addaayi ka nga xam ne mooy aji woote ilal ilal xalaaqi jëm ca yàlla mi nga xam ne moo aji bind mbindeef yi bi axsanil aadaabi ci gën gaa rafeti teggiin fil axlaaqi ca mbindeef ya kon ne na kooku mooy suñu sàng bi nga xam ne moom moo doon woote jëmale ca suñu borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo sàkk mbindeef yépp waaye moom mi nga xam ne moo bind doomu aadama yépp waaye mi ngi ko doon def ci anam wu gën a rafet waaye ma ngi ko doon def ci teggin yoo xam ne moo gën a rafet di ko jëflante ak nit ñi ngir di leen woo jëmaleen ca suñu borom kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mu nga xam ne moo doon doxe doxin woowu moo doon woote woote boobu waaye di ko teg ci teggin yi rafet yal na suñu borom dolli jàmm ak sutura ak xéewal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na muhammadin kooku moo di muhammad wa alihi ak ñoñam assubaaxi ña nga xam ne ñoo di way dëlante ak asamaan nga xam ne jaamu yàlla rek moom lañ def muy seen mbir wa sahbihi ak saxaabaam alxaawiina ña nga xam ne ñoo di aji làq fadlal baaxi ngënee li aji des jëte mooy suñu borom bi subhanahu wa taala kon nee na loolu nga xam ne moom laa ñaanal yonente bi alayhi salatu wasalaam maa ngi koy ñaanal ñi nga xam ne ñooy ñoñam muy ñi nga xam ne ñooy waa këram di ak njabootam waaye di xeetam wi waaye di ko ñaanal saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo làq ngëneeli suñu boroom mi nga xam ne mooy aji des ngir jaamu yàlla goo xam ne saxaloon nañ ko di ko def waaye ngir jàpp goo xam ne doon nañ ko jàppale yonente bi alayhi salaatu wasalaam fa asbatu te ñu saxaloon ñoom saxaaba yooyee an nusxa ak laa biirante ci seen biir bila shiqaaqin ci lu dul ŋaayoo wala lu dul xuloo is ngir mallaku noo moono moomoon nan an nufuusa seen bakkan yi bistirqaaqi ci ak jaamuloo seen borom nee na saxaaba yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo saxaloon ak laabiirante ci seen biir ku ci gis loo war a laabiire sa moroom di nga ko ko laabiire te xuloo du ca am ŋaayoo du ca am waaye merante du ca am boddikonte du ca am waaye ku ci ne boo koy def da nga koy def rek ngir ne lii dama gis sama mbokkum taalibe sama mbokkum jullit mu ma war a laabiire moom lay laabiire moom lay laabiire loolu kon saxaaba yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo saxaloon loolu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo doon jëf jëf ju màgg jooju nga xam ne ñi ngi doon jëfandikoo xadis yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu doon wax ne ad diinu an nasiha diine laa biirante la laaya biirante la loo gis mu mën a loo gis mu mën a jariñ sa mbokkum jullit nga taxaw ca ngir laa biire ko ko ngir mu mën caa jariñu ba bu ëllëgee bu ko jëfee yow nga mën a am ca yool ba kon ñoom xamoon nañ lool bu baax a baax a baax ñoom saxaaba yi alayhim alayhim alayhim salaatu wasalaam waaye xamoon nañ ni ñuy jëflanteeg seen biir bu baax a baax a baax waaye moomoon nañ seen bakkan yi ngir jaamu yàlla goo xam ne doon nañ ko jaamu yàlla ba seen bakkan yi mënu leen a juumloo benn yoon fu ñu toll ci ak jaamu yàlla la ñuy sax waaye fu ñu toll ci luy taxawal diine la ñuy sax waaye fu ñu toll ci ak laabirante ci seen biir ci lañ doon sax ñoom saxaaba yi ridwanullahi alayhim fa atlafu te ñu sànkoon ñoom saxaaba yooyu al amwaala seen alal ya nga xam ne moom lañ amee woon bil infaaxi ci infaax ko ci yoonu yàlla bilaa ria innaasi ci lu dul ngistal nit ñi wan nifaaxi akum naafiq ñoom saxaaba yooyu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo sànkoon seen alal ya maanaam ñoo jëloon seen alal ya di ko dépensé ci li nga xam ne mooy yoonu suñu borom bi subhanahu wa taala waaye di ko dépensé ci lislaam di ko dépensé ci li nga xam ne mooy jariñ lislaam waaye dañ ko doon def di ca ànd ak sellal waaye dañ ko doon def ngir jëmmi suñu borom rek tax waaye defuñu ko woon ngir ngistal ci kenn defuñu ko woo nit ngir ak naafeq wala dara waaye dañ ko doon def rek ngir jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala waaye dañ ko doon def ngir dimbali li nga xam ne mooy lislaam kon ñoom foofu ñu déggoon alquran la ñoom saxaaba yi waaye ñu déggoon li nga xam ne moom la suñu borom di wax ci alquran ni masalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu xabba wallahu yudaa'ifu liman yashaa'u wallahu waasi'un alim foofu suñu borom bi subhanahu wa taala daf fi wax ne misaalum ñi nga xam ne ñoom ñooy jël seen alal di ko dépassé ci yoonu yàlla de ñi ngi mel ni aw gubu dugub maanaam ñi ngi mel ni koo koo xam ne dafa jël benn pepp dugub ji ko ci suuf benn pepp dugub boobu sax jur juróom-ñaari gub juróom-ñaari gub yooyu def bu ci nekk téeméeri téeméeri pepp te suñu borom moom mooy ki nga xam ne mooy ful ab yool moom moo koy tolal ni nga xam ne na la bëgg kon ñoom saxaaba yi ñu déggoon alquran lan ngir ne buñ daan jëf dañ daan jëf te yàlla tax waaye dañ daan jëf ngir sellal ca jëf ja nga xam ne moom lañu jëf waaye def ko rek te seen borom tax kon ixlaas muy sellal ñoom lu ñu xamoon la te it lu ñu daan jëfandikoo bu baax a baax a baax la te it ñu déggoon li suñ boroom doon wax ne yaa ayuha alladina amanu la tubtilu sadaqaatikum bil manni wal ada kallazi yunfiqu maalahu ria annaasi ba aaya ba jeex suñu boroom di wax foofu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla bu leen yàq seen alal yi ci li nga xam ne mooy mann ak aza maanaam di joxe sa alal ba pare di ko puukarewoo wala di wone ne maa joxe lii wala di wone ne nii laa toll wala di ko joxe ba pare di ko wax yooyu suñu boroom nee na na ngeen ko moytandiku bu baax a baax bu leen bu leen yàq yoolub sarax bi ngeen war a am bu leen ko yàq ngir di saraxe ba pare di ca toppaat di wax wala ngeen di saraxe ba pare di wax di wër di ko wax wala ngeen koy puukaréwo wala ngeen koy ndamoo wala ngeen koy def sax ngir ngistal nit ñi waaye ngir bëgg nit ñi di leen ci tagg waaye ngir bëgg nit ñi di ci tudd seen aw tur di leen ci kaw-kawal di leen ci yëkkati di ci wax seen yu baax di di leen ci kañ ak yu demee noonu yooyu yëpp suñu borom bi subhanahu wa taala dañu koy tere kon nit ki suy sellal suy saraxe li mu war a def mooy daf caa war a da koo war a def rek ngir jëmmi suñu borom rek tax waaye dafa war a def rek ngir sellal rek tax kon saxaaba yi ñu déggoon loolu lañ waaye ñu doon jëfandikoo loolu nga xam ne mooy alquran la wa wasiqu dëgërloo woon nañ ñoom saxaaba yooyee bi naafi'a ca suñu boroom mi nga xam ne moom mooy jariñ mbindeef yi arrazaqi moom ma nga xam ne mooy wërsëgal ñi nga xam ne ñooy mbindeef yi tawakkulan ñuy aji wakkillu alayhi ci moom fil arzaqi ca seen wërsëg yi kon ñoom seeni wërsëg ñoom saxaaba yi daaw ñu ko wéer ci kenn waaye ci suñu boroom mi nga xam ne moom mooy wërsëgal képp ko am wërsëg ci suñu boroom moomu ci lañ daan wéer seen seen seen seen seen wërsëg waaye ci moom lañ daan dëgërloo ci moom lañ daan wakkillu lépp loo xam ne moom lañ soxla woo ci àdduna ci suñ boroom lañ ko daan wékk ci suñ boroom lañ daan wakkillu ngir bàyyee lépp ak seen suñu boroom bi subhaanahu wa taala kon daawuñu xool kenn wala ñuy def lenn di ca gis ne kenn moo leen mën a lenn ku dul suñ suñ borom kon ñoom ñu doyloo woon suñ borom lan ñu doon dëgërloo ci suñ borom lan te it xamoon nañ ne wërsëg suñu borom moo koy joxe te képp koo xam ne joxulu ko mënoo wax lu tax nga am ko mu ne kaanu nekkan nañ ñoom saxaaba yooyee zawun tilaaxin di borom boy ilal uxra jëm alaxira maanaam di boroomu dëgmal ilal uxra jëm fa nga xam ne mooy bis penc kon ñoom seen yitte yëpp ñoom saxaaba yooyu lan lañ ko defoon mooy yi seen yitte yëpp ëllëg yowmal xiyaam la woon kon liñ daan def ci lu baax lépp dañ ko doon def ngir di ko waajale ëllëg yowmal xiyaam ndax ñoom xamoon nañ ne dunduk àdduna gi dund gu gàtt la te it dund la goo xam ne balaa yàgg rek day jeex looloo taxoon kon ñoom ñu bàyyi woon xel li nga xam ne mooy dunduk àllaaxira googee fas génnoon ci li nga xam ne mooy dunduk àdduna gi maanaam defuñu woon àdduna muy dara waaye seen lépp loo xam ne moom la ñuy jëf dañ koy jëf te yàlla tax waaye dañ cey boole ak sellal ngir di ko waajale seen dunduk ëllëg moo tax mu ne is ngir waajahu jàmmarloo woon nañ addurrata mooy wujju wa bi talaaxi ci ak passé maanaam wujju alaxira mooy lan mooy àdduna kon ñoom li ñu jàkkaarloo woon ak àdduna ñoom saxaaba yooyu mooy ak passé maanaam dañoo gàddaayoon li nga xam ne mooy àdduna buñ ko waxee nag jubluwuñu ci ne nekkuñu woon ci àdduna di dund waaye doon nañ dund ci àdduna doon nañ def li nga xam ne moom la ñu war a def ci àdduna waaye dañoo jàppan ne àdduna moom diir bu gàtt la jaru dara jaru fi dara moo taxoon dañ doon jëfandikoo liñ doon wax naa kun fi dunya ka annaka garibun aw abir sabil maanaam nekkal ci àdduna mel ni ku tubranke wala kuy jéggi aw yoon kuy jéggi aw yoon xam nga ne diggante boobu lu gàtta gàtt la kon daanaka def fi dara daanaka xaju fi waaye soo fi nekkee mel ni ku tubranke tamit nga xam ne jàpp nga ne fii moom ay lu niiw rek diir bu gàtt rek laa fi def waaye fa nga xam ne mooy dundu dëgg ga mooy ëllëg yowmal xiyaam te balaa yàgg danaa fa dem saa boo jàppee noonu àdduna daanaka dara doo fi def dara muy muy dara moo tax mu ne lam yatruku mosuñoo bàyyi ñoom saxaaba yooye li genrin ngirum tiit wala ragal aw imlaaxin wala ñàkk amran mbir minal mu dabbiril xalaaxi tukkee ca yàlla ma nga xam ne moom mooy dogal moom mooy dogal lépp loo xam ne wàcc na ci kaw suuf waaye lépp loo xam ne wàcc na ci mbindeef kon ñoom saxaaba yi mosuñoo bàyyi menn mbir maanaam ndigal loo xam ne moom la leen suñu boroom jox mosuñu koo bàyyi mukk ngir tiit wala ñu ñàkk ngir ne amuñu dara kon lii suñ boroom digle duñ ko def wala dañoo tiit kon lii suñ borom digle duñ ko def yooyu ñoom daawuñu ko def kon am tiitaange wala ak ñàkk mësuta tax ndigal li nga xam ne moom la leen suñ borom digal ñu koy doyadal wala ñu koy wocc ginnaaw kon ñoom seen lépp seen borom lañ ko defaloon seen lépp seen suñ borom lañ ko bàyyeeloon maanaam suñ borom lañ bàyyeeloon seen bopp ngir wakkilu waaye suñ borom lañ bàyyeeloon seen bopp lépp loo xam ne moom lañu daan jëf tamit dañ ko daan jëf di ca bàyyi xel suñu borom waaye di ca di ko sellal ngir mu man leen a jariñ dara ndax jëf ju mu man di doon nit ki su koy jëf te àndu ceeg yéene ju rafet àndu ceeguk sellal bu boobaa jëf jooja du ko jariñ dara kon nit ki war naa fexe ba lépp loo xam ne moom lay jëf mu doon loo xam ne lu sell la waaye da ko jëf te suñu borom bi subhanahu wa taala rek tax te loolu saxaaba yi ridwanullahi alayhim doy nañ ci ay exemple bu baax a baax a baax kon xam naa dañuy tuub tey jégglu rek di wax ni in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu